jër ngeen jëf sunu mbokk internautes yi mbokki Bawal Info TV ñoo ngi leen di nuyu yéen ñi nekk ci biir réew mi ak yéen ñi nekk ci bitim réew dañoo bëgg a ñëw wax sunu xalaat ci kàddu yi njiit réew mi yëkkati ci France wala ñu ne sax kàddu yi Macky Sall njiitul APR yëkkati ca France ndax jàpp ma ne kàddu yu ab président war a yëkkati la te li tax ma ne Macky Sall njiitul APR tamit fa mu ko doon waxee ay ñoñam ñoo fa nekk mu wax ne kenn du ko xoqatal kenn mënu ko xoqatal du ragal avant muy nekk président sax kenn mënu ko woon a li nga xam ne nag eh, nemmeeku naa ko sénégalais yu baree baree bare aussi nemmeeku ko teg si di ko waxtaane mooy yenn événement yi buy am ci réew mi président Macky Sall day génn réew mi loolu nag am na lu muy firndeel kon am na lu muy firndeel bu ñu waajee manifestation nga daw génn réew mi loolu lumu lum doon ban qualification lañ koy jox euh, beneen bi li mu wax lan moo tax ñëwul ba ci réew mi waxee ko fi su ko keroog bi ñu woowee Barthélémy Dias man nag Ousmane Sonko yi wuy ji su ko fi fekkoon au moins mu waxee ko ci réew mi waaye bi ñuy waajal événement yooyu nga génn réew mi dem ba bitim réew di wax na kenn duma xoqatal loolu jàpp naa ne kàddu la yoo xamante ni tey yu yéeme yéeme la euh, leneen li nga xamante ni bëgg nañ ko see wax tamit mooy dañuy faral di gis ne ñi sentir ne dañoo ragal wala ñi sentir ne jàppe nañu leen ab ragal ñooy faral di justifié wu naan man duma ab ragal ndax dangay gis ñaari xale daje wala ñaari mag daje musu ñoo gisante kenn ki naan ko man duma ab ragal mais nit ñaar kay bu ñu demee ba jàmmaarloo war see des duma ab ragal ak ab ragal laa xeet yooyu yaakaar naa ne jëru ko si ndax ku nekk ragal xam nga ku nekkutub ragal xam nga beneen bi président jàpp naa ne tamit dafay tontu lu sénégalais yu bari di wax ndax nag dafa am kenn ku nekk benn caricature wala benn chapeau bu ñu lay faral di solal euh, président Macky Sall dafa am chapeau bu ko ñu bari solal mooy ñemewul li tax ñemewul nag parfois ñenn ñi dañ koy justifier ci yenn yenn circonstances yi ndax yàgg ngeen a dégg sa Seck muy wax ne Macky sàll ragal la te Idi ak Macky yàgg nañu ci gouvernement Ablaye wàdd euh, te Idi bi muy wax Macky ragal la du makki mi nekk njiitum réew Macky mi nekkoon euh, Macky mi nekkatoon njiitum réew ndax sa Seck avant muy ànd ak mburook sow muy nekk mburoog sow taxaw na ne Macky sàll ragal bu mag la joxe na si exemple nee na même ci deuxième tour bi Macky dafa tiitoon ragal ba nga xam ne dafa dafa dem ci Ablaye wàdd pour ab Ablaye Wade yónnee ko jox ko kaaraange te pourtant Macky bi mu laajee Ablaye Wade kaaraange ab Wade da koo jox kaaraange est-ce que Ousmane Sonko fi mu toll ak dayo bi mu am tey ndax su laajoon Macky kaaraange Macky dina ko jox kaaraange te pourtant Ablaye Wade bi mu ko jox kaaraange su ko neexoon mën naa lànk te pourtant Ablaye Wade dafa jël dix élément yu bib jox Macky jël dix éléments yu GIGN jox Macky pour ñu gérer pour ñu gérer sécurité am moo tax bu iddi ne Macky ragal la. te senegal yi xam ne ñoom ñaar yàgg nañu ñu bari mënuñu ko weddi par rapport ak boo si yokkee luy waaj a xew ci réew mi yenn événement yi lu si ëpp du ko fekk ci réew mi beneen bi mooy yéen a ngi dégg Serigne Assane Mbacké sax ma ngi koy nettali bi président Macky Sall amee jafe-jafe ak Ablaye Wade mu daw dem tuubaa Serigne Alaaji Baara Serigne Assane Mbacké nee na fekk na jataay boobu président Macky Sall dafa xalaaj baat na ko boo woowul Ablaye wàdd dafa may tëj dem ñaani ji foofu ndimbal suñu laaj baar wax wax wax ak Ablaye wàdd loolu loolu lu mu doon euh, beneen bi mooy président Macky Sall même bu nekkee ci biir réew mi moom lañu dénk armée bi police bi gendarmerie bi mais daf si yokk sax ñoo xam ne mën nañ leen a woowee ay nervi ñu koy gungewaale euh, ci ay tourneem te jàpp naa ne nit bu am fit dëgg euh, jërul ngay taxaw naan man am naa fit te président Macky Sall damay dégg muy wax yenn mbir yi mos naa ko fii dégg yooneen mu ne man lañ fal maay président ma jàpp ne may président jërut a wax yow si koo xam ne def nañ ay élection ngoon jot nañu dépouiller euh, ñi ñu dénk élection yi Sénat na provisoirement yaa gagné cour d'appel dëggal na yaa gagné nga def passation de service nga prêter serment taxawal sa gouvernement yor sa décret di fal ak a folli nekk ci pale bi vraiment jàpp naa ne dina reetaan lu trop nga taxaw naan maay président déjà loolu yow yaa ngi sentir ne est-ce que mat nga li nga doon est-ce que nit ñi jàppee nañ la vraiment euh, président dëgg dëgg dëgg euh, wala yaa ngi sentir ne nit ñi dañ la xeeb wala nit ñi jàppee wuñ la président may président jërul wax euh, ma ngi mel ni ki tabax këram takk soxnaam xëy di joxe dépense toog ak soxna si naan leen may boroom kër gi. loolu jër ta wax euh, kon su ko defee président Macky Sall dem ba France ndax yu baree bari nag bu koy wax du ko waxee senegal dem ba France naan euh, duma ko ñuy xoqutal euh, ak am na ñoo xam ne boo leen toppee gaañ leen mais ci loolu leen di gaañ ci alal juñ la dénk fitu président Macky Sall fi mu ne nii kenn mënu koo natt ndax moom lañ dénk police dénk ko gendarmerie dénk ko armée comme ni mu leen ko waxee aw fitam fi ñu ko mënoon na nattee mooy avant muy nekk président te dégg ngeen li ci Idrissa Seck wax ne ragal bu mag la dégg ngeen histoire suñu laaji baare bi 23 juin ban jaloore la si président Macky Sall def ban xeex ngeen ban taxawaay euh, loolu lépp ay interrogation la mais li am ba des mooy président Macky Sall xaaruñu ko ci defante xaaruñu ko ci kuppante xaaruñu ko ci li fi amoon du fi amati euh, liñ koy xaare mooy mu fexe ba jubbanti euh, walla rétablir manque de confiance bi sénégalais yu baree baree bare am ci justice su réew mi li ñuy xaar si moom mooy mu fexe comme espoir naax saay na fi mu fexe ba jeunes yi amaat espoir ci réew mi il faut mu dalal xel yi fii ak 2024 te dalal xel yi weesuwul nga bàyyi réew mi ak doomi réew mi la ko joxoon jàmm ne ñooy loolu lañ koy xaar ndax am na sax ñoo xam ne vraiment fii ak deux mille 2024 xaaruñu ci président Macky Sall lu bari ndax am na ñoo xam ne sax seen option un mooy na 2024 jot ba mu jógee fi man noonu laa ko jàngate léegi nag su fi jógee nag ñeneen ñi nga xamante ni ñooy baykat yi ñiy bay mbayum dër xalaat keneen ku fiy ñëw koo xam ne li ñuy bay muy yàqu dina leen defal ay infrastructure de conservation euh, ba nga xam ne tey kon président Macky Sall il mu xam aussi ne amul jafe-jafe ak way politique yi naam opposition bi ñoo ngi ciy wax ñoo ngi si dugal seen loxo mais ñi ñi ëpp ñu mu amal jafe-jafe mooy askan bi aw askan nag bu ñu amee benn détermination bi dinañu am gain de cause ndax président Macky dafa dañu gis ne fin de règne la nekk mais dafa am benn jeunesse bu am. ci xel ci xalaat ci taxawaay ci détermination euh, ba nga xamante ni ñooñu la ñooñu def face ak président Macky Sall ndax sénégalais yi euh, yenn taxawaay yi euh, politicien mosu leen koo jaral mooy ndaw ñu nekk ci réew mi ak ndaw ñu nekk ci bitim réew mais léegi dama gis ndaw ñi nekk ci biir réew mi am ab taxawaay ndaw ñi nekk ci bitim réew am ab taxawaay ndax bi Ousmane Sonko génnee fël ndaw ñi bàbbee ko ci Ousmane Sonko retrouver wu si euh, dañ si retrouver wu ndax gis ne kii mooy ki nga xamante ni dëggal na boppam taxaw faire face ak Macky ndax nag dafa am sénégalais yi ñoo xam ne dañu jàpp ne réew mi li koy defar du masla ndax lu ñu maslaa dafa bëri Ousmane Sonko ñëw taxaw ne réew mi li koy ligganti mooy taxaw ne lii du fi am Sénégal yu bari nag dañoo gisutoon ku leen si euh, ku leen si man njiit ñu gis ku leen si man njiit euh, te instant bi Ousmane sonk dafa nekk sànni tàccu ndaw ñu bari Euh, nit nag bu yoree ak sànni tàcc soo ko bëggee faagaagal force coow bëri euh, fi nga xam ne nag fi la ñu bëgg jeexale mooy président Macky Sall dafa am jafe dafa am problème mu dafa am problème ak ndaw ñu bare ndax ndaw ñu bari dañu retrouvé wul ci Macky Sall ci aw doxalinam keroog maa ngi dégg am ko wax ne ñoom waa APR xaw ma bennoo am nañu ay ndaw yu mën a wàcc si si mbedd mi mais gëw ma ne Macky ñi mu àndal ndaw ñi mu àndal Macky ji na leen lu tax ñu koy wàccal si mbedd mi di ko xeexal gisuma loolu ndax boo xoolee ñun suñu gouvernement bi réew mi administration bi fal gi ñiy nommé ñëpp presque ay troisième age lay doon maanaam ndaw ñi retrouvé wuñu seen bopp ci gouvernement bi te bu ñu bëggoon ñu retrouvé aussi yenn bànqaas yi dangay jël ndaw ñi nga dugal leen mais loolu presque boo xoolee ñu bari gisuñu seen bopp beneen président Macky Sall problème bi mu am mooy dafa ànd ak ñu ko gëmut ànd ak ñu ko gëmul ànd ak ñu ko doon xas ànd ak ñu ko doon saaga loolu euh, ñi nga xamante ni tey dafa am lu ñuy bañ ak lu ñuy jomb mënuñu d'accord ak président Macky Sall ci loolu ndax mënuñu d'accord ku la doon saaga ci 2019 deux mille vingt et un mu ne yaa fi gën xam ne deux mille dix neuf boo fi commencé woon ab pont sax ab pont boo commencé woon ab pont deux mille dix neuf sax pont bi yeggagul deux mille vingt nit ki la doon xas deux mille dix neuf taxaw na taxaw na li nga def ci réew mi kenn mosu ko fee def te diggante bi mu li nga def ci réew mi pont sax boo fi commencé woon du yegg te pourtant deux mille dix neuf fi la nekkoon doon la xas mosoo def na la defoo dara ci réew mi. 2019 mu la defoo dara ci réew mi 2021 nga xam ne boo fi commencé woon ab pont du yegg mu ne la yaa def lu def nga ci réew mi vraiment loolu euh, nekkul loo xam ne ñun dañ ko jikkowoo te président Macky Sall même ñi mu ànd ak moom da ngay dégg ñu ne la ay lobby ñoo ko wër ñoo xam ne seen intérêt bopp ay clan ñuy xeexante tey boo xoolee euh, li am ci réew mi mooy réew moo xam ne ñi ëpp ci askan wi ay ndaw lañ waaye am déception am yaakaar bu tas am xol bu jeex moo tax am na ñoo xam ne seen option mooy na li fi nekk na fi jóge na fi jóge d'abord am na ñoo xam ne foofu lañu yegg te Sénégal yi aussi dañu sonn ñaata nouveau bacheler ñoom lañ sacrifié ñu jàng ba am bac dugaluñ leen ci université yi sacrifier lañ ñaata élèves lañ dugaloon ci école privée yi ak lan moo ci xew ñaata ndaw lañ sacrifié ñoo xam ne ci géej gi lañ doon dund ay pêcheurs ñi nekkoon ay mareyeurs ndax jën ndax géej euh, ñi si aju moo bëri ñi siy dund moo bëri mais bu ñu gisee bateau étranger yi euh, amul surveillance bi war a am ci géej gi euh, loolu lépp maanaam tax ay ndaw yu nekkoon ci géej gi di te réew mi munta avancer sans mbay mi ak sàmm gi ak napp gi bu dee napp gi dafa faagaagaloo nga dem ci mbay mi ñaata ndaw ñoo nekk ci àll bi nekkoon ci àll bi doon mbay mbayum dër soble pomme de terre karoot supame nawe basante mais ñu si ëpp non seulement dañuy limiter lekk li ñuy produire waaye teewul li ñuy yàqule dafa bëri ndax amuñu ay infrastructure de conservation amuñu ay chambre froide mais ñu si baree baree bari bàyyi nañ ko ndax amuñu ku leen jàppale baykat yi euh, sàmmkat yi kenn ñi muy wute yar yenn jur yi ci àll bi ndax ñàkku kaaraange loolu lépp soo ko boolee ak jafe-jafe yi nga xamante ni moo am yombaluñ Sénégalais ak faj faj mu baax da ngay dem ci région bi lëm am na yenn feebar yoo xam ne boo ko fa feebaree amul kenn ko la mën a faj ci région bi da ngay dégg ku ñu rayee Tamba ñu ne dakaar lañ koy yóbbu pour def autopsie Tamba ba Dakar kon xanaa kenn moo mën a def autopsie lu tax dakaar kese di def autopsie da ngay dem ci benn réew benn benn région kenn am fa benn jàngoro ñu ne ci région bi yépp amul ku ko fi mën a faj dakaar nga koy yóbbu. loolu ñu ne ñun réew la moo xam ne euh, ñun ñoo ngi ñoo ngi émerger ñoo ngi jëm ci kanam boo demee ci àll bi monde rural bi ñuy wax PUDC PUDC am na ñoo xam ne benn ran ran lañ leen defal am na ñoo xam ne ba léegi gisuñu ci seen bopp kon euh, bu paasee loolu tamit dafa bëri ay sénégalais yoo xam ne dañu gis ne dafa am benn injustice boo xam ne dafa am ci réew mi te di yaatu réew nag pour mu dugg ci kaaw nag mooy na dem ba ñu ëpp sa askan ba amatuñu confiance ci justice bi te loolu euh, nemmeeku nañ ne ma ngi bëri ndax ñi nekk ci mas da ngay dégg magistrat yi ñoom seen biir di wax ne justice bi tëddeewul njaaxaanaay ak yeneen cas yoo xamante ni Sénégal yi cas ne fàng lay doon par exemple tey si Sidina Fall Boughazali euh, bàyyi nañ ko ma ngi ci biti ma ngi wax ma ngi tuumaal gendarmerie corruption kenn wóoluwu ko te Boughazali li mu wax gendarmerie su ma ko waxoon gendarmerie ñu woolu ma ndax bi fi bi fi Cheikh Yérim Seck tuumaale gendarmerie dañ ko woolu Boughazali non seulement bàyyi nañ ko ma ngi ci bitti di politique def lu ko neex waaye attaqué na gendarmerie xas na leen tuumaal na leen kenn wóoluwu ko te Guy Marius Sagna bi mu fi bindee ci gendarmerie rek dañ koo jàpp xam nga yooyu noonu soo koy gis gis ki filmé woon kilifa ak Simon ki filmé kilifa ak kilifa porte plainte mbir moomu ba léegi muy traîné te déjà yow dañ la filmer te filmer nit ki si lu mu yëgul loolu euh, yoon daf koy tere te ki filmer Seydina Seydina Fall Boughazali bi vidéo bi génnee moom mu porte plainte bañ ne ubbi nañu ab enquête ci loolu lan moo tax ñu mën a ubbi enquête yi mbiri Seydina Fall Boughazali te mun mënuñoo ubbi enquête ci kilifa mi nga xamante ni porte na plainte ndax dañ koo filmer ci lu jaaral yoon kilifa ak Simon liñ leen téye vidéo bu nit filmer te nit ki dafa filmer te lu ñu yëgul loolu kon lu illicite la ndax lu illicite mën nañ si sukkandiku pour am si preuve ba mën a téye kilifa ak Simon interrogation euh, su dee tey député la bu bokk ci opposition bi say mbir dañ koy gaawal bu dee si pouvoir bi say mbir dafay yeex su dee inspection général d'État dafa dem si xalifa Sall dañ koy gaawal su dee dafa dem ci keneen wala of nag dem ci ku bokk ci pouvoir bi duñu ko fullaal duñu ko fay daal ndax dégg ngeen ki jiite of nag ñaata dossier la wax teg na ko si table procureur kon yooyu noonu dafa nekk yoo xam ne yu sénégalais yi di teg bët la loolu di naqari ñenn ñi euh, ba nga xam ne ñenn ñi dañuy mujjee fipp euh, lii laa waxoon ne dinaa ko wax ci kàddu yi Macky Sall yëkkati fi nga xamante ni moom mooy ci France jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm.